waaye kon li Balla Gaye Gackou ñëwal porte parole waaw Gackou mag président bi moo nekk président baa ngi nii comme yàlla dafa dogal bëri yàlla dafa ñu jàmm ñëpp dégg naa ñu kàddu yoo xamante ni ko waxoon dëgg nañ ñëpp ñuy def rek lay leer woo lu woo leen woo président bi ñu koy ci deux millions yi nga xamante ne wax dëgg yàlla waxante woon ko ak yéen ñu ko tekk ci loxo benn un million yi nii deux millions ñuy soñ di ñuy gërëm. preuve sama kàddu mën na ci li nga xamante ne waxoon naa ko saison prochaine. ñëpp. président wasa yooyu ñuy def président empereur. empereur empereur. di ko wax mu mu gën a jàpp rek. mooy jàpp. waaw a def ay raxam. ak ay magam tamit xam nga am yoo a a itam jox ko waaw lépp lu kontaan nañ trop ah. Youssou Mag. Youssou Pape. amul arrêté. waaye kon li Balla Gaye. Gakou ñëwal ñu yëkkati deux millions yi nga xamante ne dëgg yàlla wante woon nañ ko ak yéen. Mhm. ñu yëkkati ko tekk ci loxo bi. Mhm. benn un million yu nii mhm. deux millions yu nii. maa ngi leen di sant di leen gërëm. preuve ma kàddu na ci li nga xamante ne waxoon naa ko ak saison prochaine. ñëpp. président empereur. empereur. ñu ànd booloo liggéey. incha allah waaw lépp lu ñuy yëg yàlla defal jërëjëf mbër kontaan nañ trop ah. Youssou Mag Youssou Pape. amul